asalaamaaleykum mbokki Sénégal man la Babacar Guèye le secrétaire général du marché Petersen waaw pour defaraat bi moom moo wax la ci loo xam ne nii daal si affaire yëkkati bi mbaa danañ yëkkati ndax danañ ko defar oubien bien dañ ko defaraat loolu wax dëgg yàlla état bi la engagé te mooy lu ñu gënal aussi. parce que suñu defaree suñu toogwaay xool lu ñu defaree ba de telle sorte que bu si d'incendie dina mën a am à travers les marchés. donc loolu lépp ci sàmm suñu ci ci kaaraange la. mais loolu nag dëgg de comme man teewu man nag ci primature bi démb dafa fekk ma dem ci benn émission benn télé mais sama délégué bi nga xam ne mooy Damba Diane teewoon na fa te ba mu ñëwee jox na ma rencontre expliqué na ma lépp daal. jox na ma version yi ñu fa kii wax dëgg yàlla te am na daal mën na ci nekk. am nañ yaakaar si ñoom aussi étant donné que ñun ñëpp si secteur informel la nekk. à le Sénégal trottoir yu nekk fii yëpp ay si secteur informel la plupart ci ay trottoir lañ koy teg mbaa ci endroit yoo xam ne nii peut mën nga fa toog néega di defar rek te bu ñu gisee nag état jóg pour jël initiative pour defaral ñu ko mbaa pour jëm ñu localiser foo xam ne nii tamit dana sa paisible ci ñun mu am kaaraange danañu gënal te dans cela aussi suñu maire Alioune Ndoye ndax am na yoo xam ne tamit mu ngi ci dox tànk yu yu mat daal ay jéego yoo xam ne daal am na yaakaar que ni daal kër bu yembee kër bu matee tamit ñun ñoo ko digaale moom te gor su nekk da ngay sàmm sa kàddu nu mu sàmmoo kàddum respecté kàddum ñun aussi noonu lañ ko koy delloowee ànd cee moom te xamal ko ne ëllëg ci biir réeróo du ci am suñu diggante ñun ak moom day dafay jël ses propres engagements ferm waxtaan cee ñun ñu waxtaan cee moom fii ñu ci ak moom benn yoon comprendre nañu ñu nekki nekkin boo xam ne nii woo nañu ci ñetti yoon pour ñu waxtaan ci ni ngeen mën a defaree seen tooguwaay kooku ne bu demee ba di la wax loolu defareel seen tooguwaay étant donné que des responsables ngeen pour leen nangooti kenn ñëw di leen buntu xatal mbaa di leen jéem a jël ses propres engagements pour di leen defaral seen marché. te ñun ñun dañoo conscience chair et ci loolu moo tax ñu jël suñu motuwaay ñun tamit créé suñu lépp muy dox ci bureau ñu am suñu délégué am suñu lépp jéem a buntu xatal mbaa du ñu nangu aussi encombrement yoo xam ne ni ku ci nekk fu neex waay teg mbaa fu neex waay ñëw taxaw di def yoo xam ne ni naka su du noonu yaaxal la ou bien yaaxal ñi fi nekk loolu duñ ko nangu voilà. léegi pour ñu yëkkati commerçant yi di leen di defaraat marché bi di leen utal heure xëy ak heure wàcc ak heure bu ñu koy tëj ak heure bu ñu koy tëj est-ce que dina arranger ñu bari. ah loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom bu ci amee tamit euh, dañ koy nangu dañ koy rafetlu tamit te loolu tamit boo gisee tamit day assurer aussi. la sécurité day gën a rataxal sécurité buy am ci dëkk bi. tel heure ngay xëy ou bien telle heure ngay wàcc loolu moom vraiment mën nañ ci waxtaan jotaan doone loolu lépp lu ñu toog waxtaanee la doo gis dañ koy toog waxtaanee ba réeróo du ci am. wax dëgg yàlla loolu moom dañ ci kontaan mais na doon foo xam ne tamit bu mu doon endroit bu enclavé mbaa foo xam ne tamit suñu sañoon tamit. li ma leen di wax rek garage moom tant que garage baa ngi existé wu nit ñi di fi nekk dem ak dikk vraiment pour ñu fi jëlee nit ñi di fi yóbbu nit ñi feneen tamit danañ am compréhension boobu de ak ndimbalu état beeg ndimbalu suñu monsieur le maire ñun ñëpp nañ ci waxtaanee toogee ko ñu toog nii ñu nekk fi doonul lu ñu gënal donn loo xam ne tamit kii nii mais comme dañu kon dañuy dañuy dawal benn compréhension que ni boo xoolee lu wër Sénégal lépp ay trottoir trottoir yu nekk Sandaga je gënuñu trottoir yu nekk Petersen yu nekk Petersen gënuñu trottoir Sane euh, Tilène ou bien HLM yeneen par compréhension nag lañ fi nekkee étant ñun ci réew sous euh, pays sous-développé nekk bien vrai nag chef de l'État mu ngi dox jéego yoo xam ne de telle sorte que émergence bi mën a indi leneen te bu ñu tamit dañ koy nangu ñun ñëpp ay ndaw lañ nañu nangu que ni lu nekk du fi duñ fi nekk à éternellement loo gis rek ñun ñoom ñooy ànd ak moom ci changement beeg leneen bu ñu boo kiyee rek lu rafetal suñu jëm waaye lu rafetal dëkk bi la taaru dëkk bi leneen ñun ñoo ci mën a ànd ñu ñëpp ko defar waaw mais nag bu ñu sous-estimer le secteur informel ñun ñëpp ci lañ bokk ku ci nekk balaa ngay am sa bag ou bien balaa ngay am sa licence mbaa doctorat jaar nga ci école primaire noonu laa ko mën a définir ko secteur informel balaa ngay nekk boo ko xaree ci xolam ku koy ki ci occupé boo xaree xolam magasin moo ci nekk ou bien bailleur de mu am des livraisons yoo xam ne ni ci ay jaay ay ambulance la koy bëgg di jox mbaa yeneen kon ñun ñëpp loolu ñu ñaan suñu borom kon bu ñu sous-estimé te la Sénégal ci secteur informel lañ nekk kon si di la qu'on le veuille ou pas. yi nu ñu dundee lakk gi am ba léegi ndax ñoom financement la ñuy bi ba a xool nu ñuy toxaat la xam nga jaaykat dafa doon koo xam ne ku gëm yàlla la. fi nga nekk di fa yëngu bu lakkee ba jeex tag soo ko mayee liberté boo xam ne dana toogaat di yëngu-yëngu ndànk-ndànk rek ba ëllëg ci biir yow mu koy dimbale mën nga jël sa temps sax kenn du la ci buntu xatal mais boo nekkee ne foofu donc dafa lakk lakkale nga mbar ko fa jëlewaat bu ko tegaat beneen coono encore dina métti ci xaaraay bi moo tax daal su ma amee lu ma gënal daal nañu bàyyi ñu dox ko gum ndànk-ndànk ñu nekk ñëpp ñu comme comme ni ñu comprendre woon rek ñu fi nekkee woon ñu toog di kii promesse bu amee nag dëgg la mën na nekk mën na nekk am nañ yaakaar aussi tamit de état bi euh, jël na ci matuwaayam te j'en profit aussi ba mu amee monsieur euh, le ministre de l'intérieur ñëw na fi Aliou Ndiaye ñëw na fi te tant d'autres ministres aussi étatiques jaar nañ fi waaw mais nag nañu am yaakaar ci ñoom am yaakaar ci ñoom nag bëgguñu lu am. ci temps yi yëpp passé nii marché yi fi lakk bëri na à tort à travers mais démb rafetlu nañ seen conseil interministériel bu am. ñu jël ci des daar daar ñun moom ñu gënal daar daar des yoo xam ne nii vraiment euh, jaaykat yi ci mën a gis seen bopp le secteur informel muy secteur informel mbaa secteur formel parce que la plupart fii jëpp bu cité douze magasins yoo xam ne nii ci table lañ njëkk yi fii nii ba yàlla may leen li ñu am tey te ñu ñëpp pas question que ni formel mooy jul secteur informel si ngay dama ko dund ci ñi fi nekk nee mën naa citer douze ñoo xam ne nii ñoo ñëpp ñun ñoom ñoo ko bëggu nekk ñoo ko dundandoor fii nii kon loolu ndimbal loolu muy si ñun muy si ñoom ñoom nañ def le cas général rek xool nu ñu dimbalee te yàlla tax mais nag ñu mën a toog courage la baraa di xaar ndimbal ndimbal na ca fekk loxol borom mooy comme nan nañ ñu waat suñu lieu de travail pour autant que mu am benn buntu xataan mbaa leneen parce que instant bii jëpp bu nu ma koy mën a analyser mooy nous sommes des dañoo dem ba jeexal takk xam nga une bête blessée ci digg Mandine dina demee neneen nañu comprendre rek doonu ko ni nag dañu ci métti lu mbaa leen dañu delloo suñu bopp ci yàlla rek yàllaa ñu ko teg comme nuñ ci yeneen yeneen lu dal yeneen ak yeneen mais loolu lépp nañu delloo suñu bopp ci yàlla comme naka nañu comprendre ñu ànd bokk liggéey ñun ñëpp ñu xam ne Sénégal suñu Sénégal surtout la jeunesse c'est l'avenir de demain